ذكر والمدد ahlan wa sahlan wa tarhiban bila asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki si vous seen site internet bi di 24actu comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafilay weeru koor bi tey nag ñu dikkal leen ci guddi fukkeel gi ak ñaar fukki rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon qul huwallahu ahad te juróom benn yoon ñu bamtuwaat ko fukki rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon qul huwallahu ahad yoon ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci lañuy ñuy jàpp koor gi di 5 heures